aousubillah bismillah inni waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi bàyyi xel noo ngi fii ci kër Serigne Touba gi nekk ci daarul manaan fii nga xam ne fi la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul déparé bi muy wuy ji noonu lislaam bi waaye foofu itam fi la ñu fas yéene déparé ngir ànd ak soxna maam Isa Mbàkke bintu Serigne Moudou Fati Xëri Mbàkke ngir nemmeeku ji jéego yi nga xam ne Serigne bi doon na ko dox fële ca Sarsara Mbacke xam ngeen ne baaxoo nañu at mu jot nu ànd moom gunge ko ànd ak moom lépp loo xam ne am na ci yoon ñu taataan ko jot laat ko bokki taalibe yi ñu barkeeloo ko ndax albarakatu lil mutabarikin ci biir loolu nag ñu ngi ci 1440 hijré dafa ak 2019 miladiya bokki ñu fas yéene topp ànd ak yéen rek toppal leen lii di karawaan bi nga xam ne moo jëm Sarsara lépp loo xam ne am na fi ndax bu ñu déparé fii jàpp nañ ne ñu ngi dëkkmal euh, Louga incha allah fu ñu toll nag boobaa ñu àgg daañu fa taxaw def fi waaye leeral leen barab ba la tax ñu taxaw fa ak la ñu fay def ba nit ñi àgg Sarsara incha allah kon mbokk yi dem jàmm ànd ak yéen ak seen bokku taalibe bi mu waxtaan ak Ndongal Touba jërë ngeen billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba Mbacke émission yaakaari tey ak ëllëg di yeesalaat bu baax sunu njëbal ci Serigne Modou Fati Xari mi sunu buntu ci Serigne Massamba mi sunu buntu Serigne bi di am mbégte bu baax nag bis bi ñu teewewaat ren heure bii daaw lañ fi déparé woon fekkewaat nañ ko ci jàmm ñu ci am mbégte bu baax di ko si sant yàlla sunu borom bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu waat ko déwén àndewaat ko nii dem ci Sarsara ca dëkk bu sell ba nga xam ne nag dëkk lañu jëm boo xam ne mooy dëkk bi nga xam ne fi la sëñ bi jote werdu Mahous salatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy suuf su sell soo xam ne sëriñ bi da ko tudde woon ardu saalihiina muy suufus gaa ñu baax na ñu ñaan ñëpp képp koo xam ne yaa ngi fay dem na nga sellal sa xol sellal sa jëmm fas yéene dem ci béréb boo xam dañ fay raxase suñuy bàkkaar kon nañ fexe ba rek waaye ba ñu fa demee la lanu fa yóbbu nanu ko def fexe suñuy bàkkaar sunu borom fóotal nu ko am set te buñ delsiwaatee ñu bañ a amaat ay bàkkaar loolu laay denk sama bopp di ko denk jullit yëpp di ñaan ñu dem ci bisimilahi rahmaani rahim ñu bisi ci alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw sëñ bi nee woon na illa lasina illa sarsaara xat xasado si yàlla di faaraxu daarina aw saara yàlla defal loolu defal ko jullit yëpp ñu ñaanal mboolem képp koo xam fay dem góor ak jigéen ma nga nekk ci àdduna bi yëpp fu waaye mën di jóge rek ñu ñaan yàlla sàmm ñu aar ñu ñu dem ci bisimilahi rahmaani rahim ñu bisiwaat ci alhamdulilahi rabi alamin te la ñu fa yóbbu suñu borom nangol na ko Serigne Touba gën ñoo nangol liggéey bi di delluwaat di tuubaat bu baax di tuubaatal Serigne Touba bu baax di santaat bu baax di yeesalaat suñu njëbbal bu baax a baax حسد زيارتي فارق داري لا إله إلا الله فار الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارة فارق الدارين أوصارا إن الذين إلى Yeah. تعالوا ويتأذل الكلام لوجهك الكريم قلد الصلاة سابع أوصل للنبي ما يرغب فيه أدخل الله قرب رقب على الرسول كالنبي محمد وتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل وسلم كل عام ومجلسي ومسكني وبري نوير بجاه المصطفى مري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم كل يعميا أديني يا عصمة والكتاب وتقن الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci édition spéciale bi nga xam ne nii moom moo ñu fi dajale tey di màggal ak Sarsara édition 2019 bii nag nekk fukk ak ñeenteel bi édition euh, fédération Ahlou Café ci njiitalu soxna maam Issa Mbacké ànd ak nag mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw teew fii Euh, fas yéene dem nag nga xam moom mooy Sarsara ca Mauritanie ñu nekk ñu ngi escale fi nga xam ne moom mooy euh, Louga Louga di euh, di bërëb bi nga xam ne ni at mu jot bër bu ñu dikkee dañuy daal di ñëw rek fii nga xam ne moom mooy dëkk bi daal fi fas yéene mm, toog tuuti lu mat fanweeri simila daal fi amal benn ndekki boo xam ne ni mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci diwaan bi Euh, te nekk ay taalibe bokk ci ahlu café war a tamit ñoom tam barkeelu ji fële nga xam ne moom mooy Sarsara mbokk yi ñu ngi ñuy toog nag euh, coordination bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii Abdoulaye Dieye ko ñoom ñëpp ñu ngi teew fii waaye nag ñu ngi ànd ak benn délégation bu toll ci ñaar téeméer nit ak lu tegal euh, dañuy daal di fas yéene nag ànd ak délégation bi nga xam ne ren gis nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Croix-Rouge ñëw nañ ci délégation bi waaye tamit ñu ngi xaarandi beneen délégation bi nga xam ne moom moo war a jugee ba ndakaaru te soxna maam faamaloo jiite ko ñoom tamit at mu jot ñu fas yéene ñëw dajeeg ñun fii nga xam ne moom mooy Louga ñu daal di amal euh, benn euh, xaarandi boo xam ne dañuy def benn convoi de jubali fi nga xam ne moom mooy euh, Rosso Sénégal bu demee ba Rosso Sénégal nag dañu fa yendu ba ay 15 heures mbokkum taalibe bu nekk foofu moom it ñëw fas yéene teeru fédération bi teeru tamit daayira bi nga xam ne ñoom ñoo jógee Sénégal fas yéene jéggi frontière bi nag euh, ci boori euh, takkusaan nga xam ne incha allah foofu lañ koy fas yéene dem nag fi nga xam ne moom mooy Nouakchott mbokk yi euh, Sarsara édition 2019 28 pro dana ci indi lu yaatu jox leen xibaar yi ngeen bëgg lépp ci màggal bi waaye tamit présenté leen li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy ahlu kafe ak seen liggéey baay tamit ahlu kafe ba nekk foofu noonu ca Mauritanie ñoom tamit nga xam ñoom ñooy dalal ahlu café bi nga xam ñoom ñoo jógee fii Sénégal Vertu Pro daal dana leen indi lépp lu maa ngi fi nag ak suma jàngkat yi tamit ñoom Moustapha Dieye Bamba Ndiaye waaye ci coordination bi suñu xarit Sang Ndiaye Sang Diagne moom tamit mi ngi fi ànd ak Abdoulaye Dieye ñu koy wétliku daam ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye nag ci ci wetu soxna si ah, mbokkam yu baax yi tamit ñëw wuy si ko ànd ak moom ñu fas yéene koo gunge fële nga xam ne moom mooy euh, Nouakchott ñu fas yéene faa yendu nag waaye lépp lu nga xam ne am na ci information lu ngeen bëgg a xam rek ci Sarsara édition 2019 bi daan leen ko indil léegi nag euh, ci biir nag euh, ki nga xam ne donc moom mm, foofu la ñuy jébalee euh, li nga xam moom mooy ndékki yi moom lañu gis ni mbokk taalibe yi nga xam ñoom ñoo dëkkee diwaanu Louga ñoom ñoo fas yéene jébal ndékki yi nga xam ne moom la ñu baaxee soxna si xanaa rek dañuy bàyyi rek quelques images ngeen mën ko faa am le temps que nag may jëli yenn ci sama mbokk jàngkat yi ñoom dana def benn ouverture bu ndaw waaye tamit danañ fa amal benn plateau boo xam ne nii maanaam bala ñuy départ ñu wax jëmm-jëmm yi nga xam ne Sarsara moom mooy lan ànd ceeg euh, waa ñi nga xam ne moom mooy euh, fédération Bamba Ndiaye moom euh, kenn ci ñun Bamba bés bi maanaam yow ay at ak nii ngay dem Sarsara noo ko jàngatee waaw sant nañ yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ko jàngate mooy Serigne Touba moom la mu waxoon rek teyam dina gàccal na démbam rek maanaam ku gis ban fi daan jaar ban fi daan jaar ak sunu xiif jàll daan fi jaar benn oto jàll tey ñu jaar ak yu bare bare bare bare buñ fi jaaree jaar fi ndik tey ji daan mel ne buñ fi jaaree daan mel ne yaakaar ne ku tegoon ay mbanay mbanay yaakaar naa ne mën naa am tubarkalla waaye sëñ Tuubaa moo mel noonu teyam dina day gàttal démb santaan nañ sëriñ Tuubaa bu baax ci bis bii ak waxtu wi ak fi ñu teew yéen nag an mu jot yéen du fi lépp ngeen di wane ngir jëmi seen tubaab. jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon ci kanam tuuti xam naa dana ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom lañ fiy jël ci ay euh, kaddu ak ay seede ci li nga xam ne ñoom ñoo ñëw seet si soxna Maam Issa Mbacké ànd ak fédération bi yëpp jërë ngeen jëf ci kanam tuuti. ne euh, soxna si mu ngi ànd ak euh, ci bi ay jëriñ yoo xam ne nii ku nekk dafa am matt gum la dénk ñi organisation ñi transport ñi presse loolu tax na nag ñuy taxaw ak Serigne Dame Diop jamono yi moom mu yor lépp luy transport ci wàllum euh, euh, convoi bi te transport am solo kon sëñ Dame ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar la wàll wi nga xam ne ni moom ngeen yore muy transport bi ndax mën nañoo xam naka la nasoo ci liggéey bi. ñu ngi nuyu ñëpp leen ziara waaw ci wàllu transport bi euh, moment bi fi ci toll mën nañ ne xam naa bi des fële ca Mauritanie mooy des waaye bi ci Sénégal moom mel na ne li liñ ci bëggoon lépp am nañ ko ci ndax comme ni ñu waxoon ak chauffeur yi heure yi ñuy joxante woon ak ñoom ñëw nañ ko. respecté nañ heure yi oto yi ñu indee itam euh, mel na noo xam ne si méngoo naag ñi xam si ñoom la ñuy yóbbu ndax lu toll ne dëkk ak dëkk réew ak réew soo fay yóbbu transporté ay doomu aadama di leen yóbbu war nga leen wutal ay oto yu confort loolu bokkoon na ci suñ programme mel na ne suñ borom sutural na ci amee nañ ko niñ ko bëggee comme ni ñu ko waxee départ nañ Touba 6 heures et demi waxtu wi ñoo ngi fii Louga suñu fi jógee ñoo ngi war a taxaw Rosa fi ñu war a añee bu ñu añee nag door a waajal pour jéggi Euh, su ko defee fi ñu toll li ñu ci toll daal formalité oto bi mooy bëgg a des pour roose ci ci oto yi Sénégal yi formalité yi ñu war a def ndax xam nga Mauritanie bokkul ci CEDEAO dafa am seen assurance bopp euh, oto yi war nañ leen a fayal foofu ay billet bac war nañoo wut passe avant ndax karragisu euh, bi ñuy yor bu ñuy dugg ci réew beneen dañoo war a am passe avant ak yooyu yëpp yooyu daal mooy bëgg a des ci wàllu transport. waaw loolu moom yokk na ndax Touba benn oto moo fa daan déparé Dakar benn oto oto bi daan déparé Dakar en général daawul fees. Euh, gis nga ren Touba tey ñaari bis ñoo fa déparé kon dafa mel ne oto yi itam yokk na euh, comme ni meloon ci at yii avancé na loolu nag ñi koy sant yàlla rek di ñaan mu ci kanam euh, ni oto yi yokkoo ndax oto yi ñu fay jël ñi daan yóbbu nit ñi comme ñaari bis lañu woon ren dem nañ ñetti bis kon faaw oto yooyu yokku noonu daal fi lañ ci tolloogul fi nekk nii ci transport bi. waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye ñu ngi baax di la di nuyu mbokk yi di jiital na ci suñu kàddu sant yàlla julli ci yonent bi di sant Seexul Xadim suñu yaakaar di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp di ñaanal soxna maam Isa Mbàkke mi nga xam ne eh, liggéey bu rëy bi moom la ko yàlla teg ci loxoom muy ziar Sarsara ren di fukkeelu ak juróom ñu koy ànd ak moom li nga laaj nag eh, lu am solo la muy lan moo tax ñu taxaw fi ci Louga eh, Louga ñaari mbir moo tax ñu taxaw fi Eh, benn bu njëkk bi mooy umpule wuñ ne sëriñ bi bi muy liggéey liggéeyam bu rëy boobu ca Gabon jaar na Louga mi eh, ngi nekkoon le 12 août 1895 waaye tam bi muy dem gànnaar eh, trace bi mu def bokk na ci Louga gi mu jaaraat fi beneen yoon ñaari mbir yooyu tax nañu jaar fi ñetteel bi nag mooy soxna maam Issa mi nga xam ne moom la ñu àndal dafa am ay xarit am ay wóllëre am ay soppe am ay daayire fii ci Louga am na ko ñuy wax soxna Umu Jaw moo fi jiite daayire yi am na ku ñuy wax euh, ay de Samb euh, am na aussi euh, ku ñu wax Soxna Njawa Jeng ak ñi ñu àndal ñëpp ak soppe yi ak góor gi nga xam ne moom la ñu dalal fii soxna Isa mii li ñu wëlërante ak moom ba taxaw fii ci place mooy dañ fi mas a jaar voyage bu yàgg booba dañ doon dem sax gànnaar waaye nekkutoon ziyaara ñu jaar fi noppalu fi rek dallu fi muy taalibe bu baax soxna si fasante ak moom kóllëre wax ne saa wu jaaratee Louga rek dana jaar fi moom loolu moo jur bi ñu tàmbalee liggéeyu Sarsara bi ñuy jaar fi fi moom booba benn oto bu ndaw rek lañ doon doon waaye dañoo dem ba mbooloo mi bari waaye soxna si dane lu tax mukk ñu teggi ko ngir fas ko lëre googu kon ñetti mbir yooyu moo tax njaar gannaaw bi ngeen teewloo kàddu yu am solo yooyu nga xam ne ni doon na bàyyi ko fii ci Louga lépp ñeel màggalu Sarsara édition 2019 ci lañu daal di dëgmal réewum Mauritanie ginnaaw bi ñu rombee Ndar ak yeneen dëkk yu fasantikoo ci la ñu tàbbee fii ci Rosso Sénégal fii ci Rosso Sénégal nag niñ koy defee at mu jot kenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii seen yéene ak seen jëf mosul dañ mu ko di fës ci bis bile muy Serigne seeni Dieng dalal na soxna si ak ñim àndal teral leen ci loolu itam ay kàddooy cant ak ay ngërëm jóg na fi ñu teewlu ko. ñu ngi dellu si di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di feeñalaat sunu mbégte ak sunu cant. ndax kat euh, dafa mel ni sëriñ bi lañuy ñuy yëngul waaye yëg na ko ndax jaar gi ngeen fiy jaar sëñ tubaa ñu gane si sëñ tubaa nag taalibe bu am mu gane la ñaari yoon cim at loolu cant gu rëy la ndax du ku ko bëgg rek am ko kon ñu ngi bëggee seen jaar bi te it di ñaan mu yàgg te yàlla gën ñu ko mën loo ba saa yu ngeen fii ñëwee rek lépp luy suñu yéene ñu def lu ko raw ñu ngi dellusi cant di gërëm di ñaan yàlla nañ ko fekkewaat déwén te kenn bañ manqué te képp ku fi indi woon aajo yàlla saafara ko ku fi indi woon aajo it yàlla fajal la ko ci barke Sëriñ baax wasalaam nuyoo bi itam ñu ngi koy jëlee ci turu soxna maam Isa Mbàkke ak mbooleem bokkam yu baax yi nga xam ne ñoom la àndal bu nu tuddee sëriñ Modou Kara rek sëñ Modou Fati Xari day mel ni tudd nañ ñi fi teew ñëpp waaye bu ñu tuddee sëñ bay jale saar day mel ni tudd nañ taalib yëpp kàddu yi nag kàddu yi gàttali doon ndax kàddu yi cant rek la yoo xam ne dafa bàyyikoo ci soxna si ak ñim àndal ñëw ci suñu jëwriñ ji di suñu wajur di suñu lépp di bàyyi seeni jàng di nit ku baax koo xam ne ba nu ko xamee ak léegi li ñu ko xamee rek mooy ku ko gis mën a roy ci moom ak taalibe ci anam yépp yaakaar naa barab yi ma njëkk ànd ak soxna si dem fa fii ci këram ci la bokk loolu duma ko fàtte benn yoon ndax daa am lu ca xewoon lu yéeme loo xam ne wax naa ko fi ay yooni yoon waaye booba ak léegi daal li ñu xam ci moom mooy muy koo xam ne ak taalib rek a ko ñor sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo jiite yoonu murit moom mi nett li ma ne sëñ Muntaxa sama xarit la te moom a ko xal boppam ñëw na fii itam ay yooni yoon mbooleem njabootu Serigne Touba gépp tam ba ci doomi borom Touba yi am na ñu ñëw fii jaar ci moom ndax képp koo xam ne da ngay jógee Sénégal jëm gànnaar mooy jëwriñ ji nga xam ne ñu bari dañuy jaar fii ci kër mu di leen lijjanti moo soxna si nag seen diggante nekk lu ratax lu rafet loo xamante ni bii eh, mënuñoo wax lépp waaye du am wenn yoon wu muy ñëw Touba di dox lu mel ni ab siyaar wala lu ni mel te jaarul ci soxna si dal ak moom mu yëglul ko sëriñ bi ba lépp sotti soxna si tam du dem benn gànnaar te jaarut fii fi këram noppalu fi mu saafonteeg moom ñu soog a jàll waaye yoonu sarsaara wii nag da cee amaat ak jagle ndax day yendoo mbooloo mi te gis ngeen tiraanga bi nga xam ne bi ñu ñëwee ak léegi def na ko ci diggante ay xiwal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak tant yi nga xam ne tànt na ko fi ak tam alxuraan ji nga xam ne jàng nañ ko fi ndax bi ma koy woo yoon wi la ne ma jàng nañ fi ñaari kaamil alxuraan te lépp dañ ko def addi Serigne Touba ngir yoon wi lépp jàppandi ci dem ak dikk kon leen lu tawfeex Serigne Touba la jàng nañ fi tam ay xasiida muy loo xam ne lu am solo la te noonu la ñuy gungee waaye tam bu nu demee ba wëlbatiku noonu itam la ñuy àndaatee ak ñun ba lépp sotti délégation yi nga xam ne tam dafay jaar ginnaaw soxna si am na ci ay taxawaay yu rafet yoo xam ne da ko ci taxaw ba ñëpp mën a jàll ci jàmm ak xéwal kon nag Serigne Séni ñu ngi lay sant ci turu sant Mbàkke waaye di la santam ci turu taalibi Serigne Touba yépp nga xam ne sëñ Abdou laxaat sa xarit ba sa soppe danga may tudd lu bari ay mbiram di wax na ngeen demee woon daa wax ne ku liggéeyal Serigne Touba di yi la war a sant ñoo la war a fay te liggéeyal nga Serigne Touba kon nag ñu ngi lay sant ci turu mbooloo mépp di ñaan yàlla yàgg waa Rosso gi nga àndal liggéey bi yàlla may leen kattan defal leen am koom ba lépp lu ngeen fas yéene liggéey Serigne Touba ngeen def ko ko bëggee. donte am na ñoo xam ne demuñ sax waaye jaar nañ fii ñu def seen ñaq ci liggéey bi lépp lu jëlee ca barab ba rek yàlla nañ am ñoom itam luñ tollu ci barkeb Serigne Touba loolu rek moo nekkoon kàddu yi di sant baax di gërëm di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba yàlla nañ ko teewaat di wen kenn bañ a manqué ci barkeb Serigne Touba te yàlla yokk xéwal gi aar njaboot gi aar bokki taalibe yi gën leen a may doolee poos ak kàttanu mën koo jëfe ngir Serigne Touba ñu ngi sant baax di gërëm ci tur soxna si ñu ñëpp xat-xat bee tax ñu gàttal ko foofu waaye li yéene soxna si ak xolam bu sedd ak ñi ma àndal mënuñu ko wax ci benn jotaay kon nag Serigne Touba mi nga xam ne moom nga liggéeyal moom nga teeru moom nga dalal moom nga ganale yàlla na la fay ci barkeem ak dara jaam ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kon su ko defee rek ñu tàllal soxna si ñaan ndax dafa war a jaar ci seefu duwaan bi ni mu ko waxee oto yi soog a jéggi ñu soog a dem incha allahu taala kon na ñëpp tàllal te ku ne wax amin te fas liñ bëgg lépp ci barke Serigne Touba amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin amin amin ya rabbal alamin barke Sëñ Tuubaa ok sooy naka kafe gi waaw alaaj ba siyaaraat bu baax euh, comme ni ci daan nekk rek chaque année ñun suñu liggéey doore nañ ko Sëriñ Tuubaa ci Daaru Manaan borom bépp boo xam ne jaar nañ fa escale taxaw nañ ko ci rek ndax loolu mooy suñu objectif loolu mooy suñu dëgg-dëgg seulement di yoon bi di ñaan la càmm ndax bu yàgg loolu ak seulement dafa jaal ren moom dana saawa saawa incha allah naar yi dina naan gannaaw kàddu yu am solo yooyu doon yëkkati ko fii ci Rosso Sénégal ci la ñu daal di jéggee bac bi ñëw fii ci Rosso Mauritanie Rosso Mauritanie nag di digg wi nga xam ne nii wala frontière moo dox diggante Sénégal ak réew Mauritanie bi ñu ëgsee kilifa yi nga xam ne ni ñooy saytu kilifa yi nga xam ne nii ñooy saytu lépp lu jëm ci frontière bi dalal nan teeru soxna si teeru bu am solo ci loolu def nañ fi diir bu xaw a yàgg la ko sabab rek du leen lu dul formalité wala boog saytu ak toppatoo ñeel kayit yi nga xam ne nii oto yi ak nit ñi ñëw ak nit ñi bàyyeekoo Sénégal ngir dugg fii ci Mauritanie màggal ci Sarsara li ko waral nag xam ngeen ko muy mbir mi daanaka dafa doonatul mbirum daayira wala mbirum màggal kese waaye relation diplomatique da ci daal di feeñ diggante Sénégal ak Mauritanie moo tax mbir mi nir woon ay jafe-jafe waaye lépp mujj tegu ci yoon. ci ci fukki waxtu ak benn ci guddi gi ci lan tàbbee ci biir réew mi di Mauritanie diirub guddi gi gannaaw jafe-jafe yi yu ndaw yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci yoon wi te la ko waral mooy naqareeg yoon wi tax na daanaka ci juróomi waxtu ci suba gi ci lan tàbbee ci capital bi di Nouakchott niñ koy defee jaar nañ ci kër Serigne Touba Cheikhul Khadim gi fi nekk ziar kenn ci njabootuk Serigne Touba di doomu Serigne Mourtada Mbacké soxna si ni ko daan defee ziar ko mu ñaanal ñu ñu door a wéyal nag fii nga xam ne nii mooy fi ñu war a dal. kon mbokk yi gannaaw bi ngeen seetaanee loolu lépp li mooy seen première étape ñeer reportage màggal Sarsara édition 2019 ñu fas yéene rek lépp loo xam ne ni am na fi ngeen dundandoo ko ak ñun di leen jox dox daje ci yeneen étape yi nekk ci suñ kanam te bi ci gën a fës di màggaluk Sarsara war a doon alxames bi di ñu dëgmal incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu